sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey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 billahi min asheytaan irajim bismillahi irahmani irahim din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin ihdina siraata al-mustaqiim siraata allaziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wa lad-daalliin bismillaahi ixwatal iimaani wal islaam wal ihsaan wal iraada assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh mbokki M-Media Group Nourou Daarayni ñu sant yàlla subhanahu wa taala di julli yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam di leen siyaare yàlla subhanahu wa taala te nanguñu suñuy jaamu yàlla jaay sayyidul wujud sallallahu alayhi di leen siyaar di leen ndokkeel di jël siyaar boobu ak nuyoo boobu di ko teg ci loxol kilifa gi Cheikh Mouhamadul Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu jot ñu ko jullit ñu bokkal liggéey bu sell bii di ko ñaanal yàlla yàggal ko ci suñu kanam bu baax a baax jëy Seydina sallallahu alayhi xam naa ñu jéem a ñëwaat ci fatbaa bi rek di ci jéem tontu laaj yi nga xam ne moo fi ñëw ñi ci jëkk jóge ci soxna Asta Faye ñu ngi koy seer bu baax di ko ndokkeel ci laaj yu am solo yoo xam ne yi andi na ko fii mu am solo lool laaja mu jëkk muy laaj mal farxu bayna muminin wa muslimin day laaj lan moo taqale ñaari bari maanaam ñu ne jullit ak ku gëm jullit ak ku gëm lan moo tàqale seen diggante ñoom ñaar loolu dañ ko naan jaa al islaamu wa waddaxa al adida min al umuur allati tuwaddaxu bayna mumini wal muslimi minha islaam bi mu ñëwee daf ñu leeral bu baax a baax yu ay mbir yu bare bare yoo xam ne yii maanaam dañ cay tegtaloo ne muslim bokkut ak mu'min waaw ñoom ñaar am nañu différence am nañu wuute bokkuñu am nañu lu ñu wuute ah, bokk na ca lañu wuute ne ne al muslimu bi shaklin mutlaqin man daxala fil islaami wa daana bi kulli ma jaa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam wa yaqum bil amali zahirati lati tuadda bil jawaarihi ne na jullit mooy ki nga xam ne kii dafa dugg ci lislaam maanaam dafa jébbalu mën nañ ko wax mooy ki jébbalu nungu ponk yi nga xam ne islaam tëral na ko di ko def nga xam ne moom lañu sayyidna Muhammad waxam ne mooy al amal az zahira muy jëf yi feeñ nga xam ne moom la nu mën a gis di tegtaloo ne kii jébbalu na dugg ci lislaam te mu doon ay jëf yoo xam ne yii ay cër lañ koy defee muy tudd ñaari baati seere yi muy ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah bi ci jëkk boobu mooy boobu di julli julli juróom yi nga xam ni mooy farata yi di woor weeru koor di natt azaka boo amee alal yoo xam ne ji mat naa génne azaka waaye tamit eh, dem makka aji néeg boobu soo ko manee yii daal mooy li nga xam ne kuñ ne muslim la te mooy ki jébbulu eh, ñu gis mu nekk ci du ko def rek dañu daal jàpp ne eh, muslim la maanaam ku jébbulu la wal mu'minu man yasduqu bi qalbihi ne nag bu dee mu'min la ñuy wax mooy koo xam ne kii maanaam dëggal na cab xolam ne yàlla kenn la amul benn buur bu ñu war a jaamu moom waaye waruñu ko bokkaal ak jaamu ko kenn ak i ponk yi xam ne yii maanaam euh, moo ca nekk lu mel ni nga gëm ne yàlla kenn la gëm ne am na ay malaayika gëm ne am na ay ndaw yoo xam ne da leen tànn yoon leen gëmit ne euh, bés pénc dina ñëw ñëpp dajawaat foofee waaye tamit gëm ab dogal lii nag ay jëf la yoo xam ne yi maanaam ci xol la ko nit kiy fas moo tax loolu dafa bokk ci li wuute li tàqale muslim ak mu'min muslim daal mën nañ ne ci ay jëf yu feeñ lañu koy xame waaye mu'min moom jëf yu nëbbutu la ndax wàllu xol la ndax gëm-gëm la ndax nit ki mën na def yi nga xam ne ni maanaam dañ naan muslim la muy di julli di woor di def yooyu yëpp waaye fekk na am na beneen pas-pas bu ne ci xolam boo xam ne bi bokkut ak dëgg-dëgg yi li ñu wax muumin nga xam ne ku gëm yàlla dëgg-dëgg ak ya muy àndal loolu tax mu ne liza la nastatiu al xukma ala imaanil fardi fi l xayaati dunia ne ne kon mën nañoo seere atte ne nit ki de muslim la fii ci adduna waaye mënuñoo atte ne nit ki kat mu'min la ci dund gi ci àdduna maanaam bala ñoo mën ne xam atte xam ne kii mu'min la dañu dem ba bés penc ba yàlla atte jaam yi bañ gis ne kii kat moom ku doon dox doxal mu'min la ba mu nekk ci àdduna maanaam xolam ku dëggoon ku gëman la yàlla la ak ponk yoo xam ne yi moom la àndal loolu tax mu ne al muminu ala martabatin min al muslim maanaam kiñ naa mumin ne nañ moo gën a kowe ay daraja kiñ naa ndax muslim ci day feeñ muy doon lu ñuy jëf ci ay cër waaye mumin nañ ko ab xol la xam ne la ca nekk yàlla dong ko xam tax mbir koo xam kon ki nga xam ne kii dafa nekk mumin xaqan ne mooy gën a kowe ki nga xam ne kii moom la ñu wax muslim ndaxte nee na li annal mar'a qad yakunu musliman ne ne nit ki mën naa nekk muslim lakin lam yadxulil imaanu fi qalbihi baadu waaye mën na ne jullit la muy muslim la mooy jébbalu la dugg na ci lislaam te fekk na booba xol bi ak gëm yàlla dëgg dëgg dëgg duggagu ca te liy tegtal lii mooy li tàqale diggante mu'min ak muslim mooy aay bii yàllay wax ne xaalatil aaraabu aman na qul lam tu'minu walakin qulu aslamna aslamna wa lamma yadxulil imaanu fi qulubikum dafa am jëmm yu ñëwoon ci Seydina Muhammad ne ñun de ay mu'min lañu maanaam gëm nanu ci sunu xol yàlla daal di wàcce alxuraan ne Muhammad nee leen gëmu leen kay waaye da ngeen naan aslam naa maanaam da ngeen naan ay muslim lañu waaye doonagu leen ay mu'min ndaxte lii tax ñuy wax nit ki mu'min la dugga ko ci seen xol jëkkee ko euh, aaya bi moom rek buñ ko jëlan teg ko mën nañu ci yem ci di tàqale diggante muslim ak mu'min ndax ñi dañoo ñëw rekk daa di ci seen njaal benn ak ñëw ñu dogañu ci siina Muhammad ne ko gëm nañu yàlla daal di weddeloo ne leen déedéet bu leen ay mu'min lañu waaye ne leen ay muslim lañu ndax li tax ñu ne mu'min la duggagul ci seen xol te mooy ngeen gëm yàlla dëgg-dëgg wéetal ko di ko jaamu boole ci ak ponk yi nga xam ne mooy ponk yi gëm yàlla bu ko defee wa tàmmal farxu min taarifil islaam wa arkaanihi wal imaani wa arkaanihi mais kon li tàqale ngir ñu xam diggante euh, muslim ak euh, euh, maanaam li tàqale lislaam aki ponkam euh, maanaam ne euh, li taqale daal diggante ñaari baat yi muy muslim ak muslim ak mu'min ne mi ngi ci ñu xam islaam aki ponkam waaye al iman ak ponkam ne ne fal muslimu man aslama wastaslama bima yu'maru bihi al insaanu aw yunha anhu ne ne muslim mooy nga xam ne gi dafa ñëw rek jébbalu joxe boppam nungu li nga xam ne ni moom la yàlla digal nit ki ak lim koy tere waaye wal mu'minu man saddaxa billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil axiri wal xadar nee na kiñ naan mu'min nag mooy koo xam ne gi dëgg na ci xolam ne yàlla am na am na ay malaayika am na ay téere am na ñu mu yónni tey bés penc dina am tey gëm dogal lii nag am na ñoo xam ne ñii gis nañ leen jàpp ne ay julli lañu te fekk na lii nekku ci seen xol ñu gëm ko di ko dund. beneen laajam bi mi ngi laaj hal yaral insaanu malakal mawti inda mawtihi day laaj ndax nit ki su dee faatu malaaka mi koy jël si ndax dina ko gis wala déet waaw dañ ko naan naam waaw nit ki de saa bu tolloo ci war a faatu malaaka ma xam ne mi mooy jël si ruuxam yi te mooy Azraayil nga xam ne kuy faatu rek malaaka moomu la yàlla wax moom koy moo moom la jox ndigal ngir mu jël ruuxa kooka mu faatu malaaka moomu di Azraayil saa bu nit ki demee ba xam ne faatu dong ci des moomu Azraayil malaaka moomu day ñëw te buy ñëw ci nit ki xam ne kii day war a faatu nit ki day jàkkaarloo moom di ko gis na nga xam ne lii na nga dikk fa moom dikk googu nga xam ne gi nag malaaka mi yore dee di rey nit ñi da koy dikk ci nit ñi maanaam ay façon jëmm yu wuute wuute lay doon ci na mu ñëwee ci ku nekk ak na mu war a ñëwee ca moom am na ñoo xam ne buy ñëw ci ñoom maanaam jëmm ju rafet lay doon joo xam ne ji ki muy ñëw ngir jël ak ruuxam day da koy bëgg lool ñeme ko ba am ak dal ci moom mooy ki nga xam ne kii dafa nar a texe waaye tamit bu naree jël ruux koo xam ne kii kuy texe di la day yor jëmm joo xam ne ju ñàng ñàng lay doon ju garaaw garaaw ju mit ji nga xam ne ji kon day war a faatu kon daal malaaka moomu di jël ruux yi buy jël si nit buy jël si ruuxam nit ki nit koo ku war a dem maanaam day jàkkaarloo mu gis ko mu doon jëmm jàkkaarloo ak moom beneen laajam bi mu ngi laaj mata yatil malakaani assailaani fil qabri day laaj nit ki buñ ko suulee bu faatoo ba ñu suul ko ci bàmmeel ñaari malaaka yooyu koy laaj kañ lañu koy dikkal dañ ko naan yati almalakaani saailaani fil xabri baada dafnil mayti mubasharatan nit ki saa bu faatoo ba ñu suul ko ci suuf buñ ko suulee rek maanaam ñaari malaaka yi nga xam ne ñoo ko war a laaj lañuy daal ñëw nekk moom ci biir bàmmeel bi nit ki day daal di dekki euh, ñaari malaaka yi daal di ñëw jàkkaaloo moom ci lañu koy laaj ñu tàmbali di ko ko laaj te loolu liñ ci tegtalo mooy euh, am na jëmm juñu denc euh, ba pare fekk jamono yonente bi la sallallahu alayhi wa biñ ko dencee ba pare Seydina Muhammad wax saxaaba yi mu àndal ñu biñ ko bi ñu dencee kooku mu ne leen seen mbokk mi ñaanal leen ko jamono yi malaaka yi ñu koy laaj ñëw nañ ci moom ba ñu ngi koy laaj kon nit ki fu ñu ko suule rek maanaam day daal di dekki te bu dekkee rek ñaari malaaka yu dañuy daal di ñëw daal tàmbali laaj ba nga xam ne bii moom lañ koy laaj tey ne ne ki nga xam ne kii dañ koo suul fuñ ko suula ñi ko suulan bu ñu wëlbatikoo bay ñibbi rek day dégg seen dàll ya na mu yëngoo ci seen tànk yi ñuy dox di ñibbi kon ñaari malaaka yi moom fu ñu suulee ki rek ñu daal di ñëw daal di tàmbali laaj ba nga xam ne bi moom lañ koy laaj beneen laaj bi mi ngi laaj xukmu sujuudi tilawati baadal asri day laaj sujjóot yooyu nga xam ni dafa am ci alxuraan karim nga xam ne dafa am ay yoo xam ni kuy jàng alxuraan ba àgg ca boo jàngee ay da nga war a sujjóot te sujjóot boobu maanaam sunna la maanaam du farata sunna la te dañ ne ginnaaw julli tàkkusaan kenn waratut def naafila maanaam di di di julli di sujjóot léegi kiy jàng alxuraan ginnaaw tàkkusaan fekk jant bi demagul bay xongo buy jàngal xuraan bu jàngee aay bi sujjóot da koy sujjóot waaye nag bu ñu demee ba jant bi waaje so nga xam ne mi ngi xongo nga xam ne léegi mu so su boobaa bu jàngee alxuraan bàgg ci aayab sujjóot maanaam du ko sujjóot da koy jàng noonu rek su sekkee ne ca daan ci jamono yooyu nag nga xam ne jant bi xongo na ñu ni teralandi léegi sujjóot ak alxuraan boobu léegi am na baat yoo xam ne man ne mën naa remplacer euh, sujjóot boobu te mooy nga wax boo jàngee aay bi ba pare nga wax subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil bi nga jàngee aayat sujjóot boobu beneen laajam bi mi ngi laaj moo huwa axiru ma nazala min alquran lan moo mujj wàcc ci alquranu karim foofu dañ ko naan ixtilafal ulama u fi taayini axiri ma nazala min alquran yi alal itlaax yi foofu moom borom xam-xam yi dañ cee wuute lool lool ci yan aaya moo mujj wàcc ci alquranul karim dañ cee wuute lool lool wastadalla kullun minhum ila athaarin laysa fiha xadithun marfuun ila nabi sallallahu alayhi te ne ne noonu ñu wutee ci ban aaya moo mujj wàcc ci alxuraan dañ cee sukkandiku ku ci nekk da sukkandiku ca aay ba nga wax ne moo mujj wàcc ci ay jeextal yoo xam ni maanaam amul benn xadis boo xam ni daal maanaam jëlee nañ ko ci yonent bi maanaam mu saxal ne aay bi dëgg-dëgg moo mujj a wàcc te bu ñuy xool niñ ca wuutee ñoom boroom xam-xam yi gis nañu lu mat fukk ci ñoo xam ne nañu fukki ay yoo xam ne bokkut ñu ne lii bu ci ku ci nekk ne ay bi moo mujj wàcc ci alxuraanul karim bu ko defee fa kaana hasa min wa kasratul xilaaf ala aqwaali shatta ne loolu tax euh, wàll googu ak lënt da ci am maanaam lu leer nañ dëgg dëgg xam ne aay bi moo mujj wàcc amu ca euh, te moo waral wuute gu bari xam ne gii euh, wuute nañ ko ñoom borom yi ba wax ci ay wax yoo xam ne yu sore la yu taqalikoo yu bokkut am na ñoo xam ne dañ ne aay bii moo mujj wàcc mooy fii yàlla lay wax wattaxu yawman turjauna fihi ilallahi summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun am na ñu ne ay boobu mooy li mujj wàcc ci alquranul karim am nañu waxaat ne ay bi muy yaa ayyuhal lazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min ar-riba ñun ñeneen am nañu ne aay bi nga xam ne mooy wax ci riba maanaam mooy li mujj wàcc ci alquranul karim am na ñeneen ñu waxoon ne yaa ayyuha allazina amanu iza tadayantum bi daynin ila ajalin musamman faktubuhu am na ñoo xam ne nii aay bi ñu wax mooy aaya yi wax ci wàllu bor te nekk ci suratul baqara te aaya bari lool lool ne nañu yooyu mooy li mujj wàcc ci al quraanul karim am na ñoo xam ne dañ ne fastajaaba lahum rabbuhum anni laa uudi wa amala amili minkum min dakarin aw unsa am na ñu ne aay boobu moo mujj wàcc muñ koy lim daal doon na ba ci lu mat fukki aaye yoo xam ne ku ci nekk dangaa jàpp ne aay bi mooy li mujj wàcc ci alxuraanul karim waaye googu wuuteem ci diggante xam-xam yi Seydina Muhammad dafa wax ne ixtilaafu ummati rahmatun wuute gi nga xam ne gi moom la sama xeet yi wuute dana loolu yërmande la joo xam ne bii yàlla moo leen ko defal di ko jaare ci seen wuti wu ñuy wuute ci wàllu xam-xam bii ñuy joxe beneen laaj bi Bachirou fay moo ko fi yónnee Bachirou Faye dafay laaj jàkka joo xam ne ji dafa nekk ci kër bu ca mbooloo julee ba pare ndax bu meneen mbooloo ñëwee ñoom itam dañ mën a wut seen imaam julliwaat jullee mbooloo wala dañuy jullee ci biir jàkka ji kenn par kenn wala dañuy wala duñ jullee ci biir jàkka ji waaw jàkka moom mu doon béréb bu jullikaay su fekkee ne jàkka joo xam ne ji dafa am imam ratib muy wut nañu imam ñoo xam ne ji moom moo yore jàkka ji waxtu yi day ñëw di ko jiite si ñoo xam ne imam sàngamkat moo jiite jàkka ji su boobaa jooju jàkka su imam bi ñëwee ba ñu julli julliñ mbooloo meneen mbooloo mu ñëwati ku nekk danga war dër sa julli bopp julli ko waaye bu dee jàkkal la nag joo xam ne ji ju mel lu mel lu nekk ci kër la te wutu luñ ko imam joo xam ne ji mooy taxaw di jiite waxtu ya nga xam ne daanaka dañ koo teg rek maanaam ku yàlla dogal euh, nga tollu fa waxtu julli jot nga mën ko fa julli nga xam ne amul imam fixe su boobaa it mbooloo mu ñëw mën nañu wut seen imam julli dem su meneen ñu ñëwee tamit wutaat seen imam mu jiite leen ñu julli kon daal bu dee mu am imam ratib la moytu ñu fay julli ñaari julli mbooloo waaye bu amul imam ratib bu boobaa duñ ko bañ yàlla na nga defal tawfiq bi jël sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amin daa yoo daa